président Pastef maa ngi lay nuyu Ousmane Sonko maa ngi nuyu vieil ami Khalifa Sall maa ngi nuyu ma sœur di nuyu Déthié di nuyu monsieur le ministre d'État Habib si di nuyu tous les responsables du podium maa ngi nii wàccee aéroport de douze de vol waaye dama ne woon ñu invité ma ma ñëw bu ñu ma invité wul it ma ñëw d'abord d'abord pour remercier Yewwi Askan Wi remercier leen ndax bi président Macky Sall yónnee ne nañu foqati suma mandat Yewwi Askan Wi dafa bañ voter contre le kidnapping de mon mandat kon loolu bu ngeen wootee tey war naa ñëw ba fii gërëm leen sant leen ndax nag as gor boo ko jàppalee ci combat li ko war mooy boo taxawee di combat ma ne ci wetam ñun loolu lañu xam li nga xam ne nag mooy mbir mi sànq am na ku ko wax li nga xam ne mooy aali këllëj gi te indi problème yëpp problème judiciaire foqati ay manda arrêté ay jeunes par centaine benn mbir rek a ko waral mooy Macky président Macky Sall bëgg troisième manda troisième mandat ce n'est pas possible ce n'est pas possible monsieur le président ma fàttali la phrase bi nga xam ne yaa ko waxoon yaa ko waxoon il an waaye boobu président Abdoulaye Wade nga ko doon wax monsieur le président Macky Sall defaraatal sa toogaay monsieur le président bul topp ñi nga xam ne ñoo lay puus te bu yëf yi tàngee ñooy njëkk a loolu nga waxoon il y a dix kon tey man moom laa lay wax aujourd'hui li nga xam ne nag mooy taxawaay bi war a am muy l'ensemble de démocrates te defe naa ne am na waxtaan woo xam ne tàmbali na vraiment su la maestria de monsieur le ministre d'État Habib sii ànd ko nag ak tous les responsables yi toog fii ñu toog waxtaane ko ne ñun ñëpp war nañoo ànd doon benn tous les démocrates ndax vraiment constitution bi dafa leer nul ne peut faire plus de deux mandats kon nag président Macky Sall li la war nga bàyyi nit ñi ñu dem ci ay élections des élections libres inclusives nga jël vraiment lépp teg ci suuf lii sa warugal mooy nga préparer élection yi des élections libres où tout le monde participera nga bàyyi xoxatal bi aussi nga bàyyi aussi xale yi nga xam ne ñu ngi ci kaso bi maa ngi nuyu l'honorable député Guy Marius Sagna mi nga xam ne aussi ci assemblée nationale vraiment jàmbaar la fa kon looloo doon kaddu yi voilà di leen nuyu di leen gërëm ak votre permission nag comme le vol était long mën a dal di yeeweeku maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf